dañu ñëw tey fii ci jas indi njaalu président Moustapha Niass di secrétaire général AFP indi njaalu ñun militant yi nga xam ne ñoo ànd ak euh, Alsamba 6 fii ci région de Thiès pour ne waa Diass sigi leen digale ndax ki ñu ñàkk muy monsieur le maire Alsamba 6 royukaay la woon ci doxalin ci wàllu politique ndax pas-pasam engagement waaye surtout loyautéem ak fidélitéem te mu nekkoon royukaay ci wàllu ni ñuy jongante ci élection ndax 2003 ba tey ji ñuy wax ak yéen élection bu mos am fii ci jas Al Samba Ciss ak équipe ñoo koy gañe waaye ci wàllu jikko dafa ràññeeku ndax dafa am jikko joo xam ne ñu mën ko sedd ci Alsamba Ciss dafa dem ba xaw a tumaranke léegi muy li ñu naan fidélité ak loyauté ndax diggante 2000 ak tey ji may wax ak yéen amul xeetu guerre bu ñu deful Alsamba Ciss waaye fi mu taxaw muy alliance des force de progrès bañ fa jóge mu sax fa kon loolu baaxoon na ñu fësal loolu ci kanamu mbokk yi mais fësal ko aussi ci kanamu Sénégal pour ñu wane ne y a des hommes yoo xam ne ay royukaay lañ ci réew mi wane ne am na ay hommes politiques yoo xam ne gànnaaw nañu ay valeurs yoo xam ne ñoom am nañu solo ci defar réew. kon loolu taxoon ñu ànd ak délégation bu yaatu gis ngeen ay nit jóge nañ fii ba Ziguinchor fii ba Kaolack fii ba Ndar ñëw ngir seede ànd bi ñu ànd ak Alsamba Ciss di wax bu baax a baax ne ñun ñëpp mën nañu seede ne ci wàllu militantisme royukaay la woon. Euh, tiis la waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla teeru ko yërmande sàmm njabootam sàmm wajas jamono yi ñu toll nag muy jamono mbas ah di fàttali sama bopp di fàttali waa Sénégal yëpp nañu góorgóorlu ci mesure barrière yi porter ay masque ndax feebar bi mu ngi ci réew mi feebar bi day lorate kon ku nekkoon nga ci gànnaayoo pour que mu bañ a law mu bañ a wàllate mais aussi mu bañ law ci biir réew mi.